ashura foog mu wax leen dara ci ashura tam xaret bés la boo xam ne bu rëy la ndax aadama ci lañ ko nangul tuub yonti yàlla noox ci la gaalam ga teer Moussa ci la labal Firawna na tombeek bés bii kon loolu rëy na wante nag dara nekku ci sunna yi nuy def noonu bokk ci xam nga loolu xam-xam la nga xam ko cere yi nag yi yàpp yi xumbeen bi ak mbégte bi xaraam bokk ci lu tax juróom-ñeenti fan ci ashura ci la maawiya yazid ibnu maawiya to neexal jabari eh, jabar ji eh, asan ji kuñ naan jaadata mu def tooke ca reeru tam xarit ba mu lekk ko dee ci guddi gi ñu yeewu suuli ko baqiya loolu taasuwaa reer baa ngoog loolu boobu kenn war ko rey ashura muy fukkeel ba ci la ñu nax Ousseynou ba génnee ko Makka mu dem Irak ñu kar ko ci yoon wa ñi mu àndal rey ko rey ahlul bayteeg famille yonent bi ak ñi mu àndoon yëpp ñu faagagal leen ba dara desu ci lu may benn jigéen Zeynabu ku ndaw ak Ali bu ndaw boo xam ne dafa xaw a feebar muy Zeynul Abidin kon loolu mooy bésab tey muy Ashura ma jàpp nag ni ab julit bu gëm yàlla te gëm yonent bi gëm fami yonent bi waroo bég ci bés biñ faagaagal waa kër yonent bi kon du bésam mbégte wax naa ko ci rajo bi ay yu mu nekk dama koy baamtu waxal leen lu may karbala waaye nit ñi dañuy dëgër bopp te bëgg lu xumb waaye du mbégte du bés bu ñuy bég ñi sant sekk nag ak njóobeen yeeg jaween yeeg njaayeen yi ñoom dañuy occasionné pour reer neexal reer bi mais benn solo li wóor daal mooy boo xamee li ci xew doo ko fàttaliku di ci baan boo ci fàttaliku da ngay naqarlu ndax ci lañu rey Ousseynou ak famille yonent bi yëpp jeex leen ci kaw suuf ba nga xam ne Yuusuf mooy benn yéen bu jigéen Zeynabu ak Ali bu ndaw ñépp ñu rey leen dagg boppi Ousseynou bi yeloo ko Bagdad euh, yóbbu ko Damas Saam mi ngi ko yóbboo Damas jox jox ko Yazid ibn Muawiya mu dal di jël bopp bi foofu lañ ko suul guddi googu nag ci la Yezid décrété feet ak ak euh, bànneex xale yi war fas yi berkelle yi euh, baxla yi mbaam yi takk jooloolu yi di sànni pétaar yi di bég naan famille yonent bi jeex na ci koos loolu mooy loolu mooy reer bi kon reer bi benn ñaareel bi ku ne xam na ne loolu yëpp gannaaw yonent bi la gannaaw yonent bi gannaaw Babacar gannaaw Ousmane gannaaw Ali gannaaw Maawiya ba ci yéesi juróom-benni xalifa ci la màggal guddi googu ci ay reer ay xum-xumbeen ci la xew parce que dañ doon bëggee waa famille yonent bi jeex na ci kaw suuf ñu suwaar mbaam yi nag di sànni pétaar yi ci guddi googu loolu nag borom xam-xam ak bindkat yi jamono wante ak buur te ragal ko ñu bind ci naan lii baax na nangam nangam feni kese lépp liñ ci digle amut lay benn xadis wéru ci lu may koor yonent bi daana ko woor te loolu moo jiitu moo jiitu xew-xew boobu dafa ñëw Madina fekk yahud yi di woor mu ne lu ngeen di woor ñu ne fukkeeli fan bii ci la Muusa labal na ci baaru Xalsum bu ji bu dig delsee ñu màggal ko mu ne maa leen ci gën a ay ndax sama collègue yonent la kon may dama koy woor saaba yi ne ko fukkeel bi yahud yi dañ koy woor lu tax ñun ñu di ko woor mu ne bu ne ñu woor juróom-ñeenteel bi yàlla dogal déwén fekk fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu moo tax ñu ne la mébétoon muy taasia muy démb woor ko sunna la ndax mébét na ko tey jii woor ko sunna la ndax defoon na ko papilis cere yeeg nag yi yëpp nu noog nun la rek xam nga ñu ne ay lañ ay tuubeen lan lu xumb lañ bëgg gune yeeg jigéen ñeeg cere yeeg taaje bon yeeg karab yëpp yëpp lépp gannaaw gi la soso yent bi jóge na fi moom ab lu jege téeméeri at loolu xewut kon loolu ci nekk sunna baaxut baaxut mu nekk danaa ko baamtu ci rajo bi laa koy bëgg benn borom xam bu ci tontu indi source doo am benn source parce que bidaa la baaxut loolu moo di ashura ak tasawaa kon ñu jàng salaatul fatiha ñetti yoon ñu yeewi la allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siraq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala آلي قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق ولا إلى صراطك المستقيم على آله قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق ولا إلى صراطك المستقيم على آله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين